waaw tey SAES e dafa woote woon benn conférence de presse ngir euh, waxtaan ak askan wi ci euh, ñaari fan mooy protocole d'accord bu mu amoon ak euh, gouvernement bi ci mois de janvier 2023 ak aussi université yi fu ñu toll ci ouverture bi nii. ci wàllu protocole d'accord bi am na poñ yu bari yi nga xam ne signé woon nañu ak gouvernement bi mais ci poñ yooyu daal lu ñuy seetlu daal mooy que benn poñ lañ ci respecte mais yenn poñ yëpp. amul dara luñ ci respecté te loolu foog naa ni waxtaan nañ plusieurs fois ay yooni yoon ak ministre enseignement supérieur muy Moussa Baldé waaye daal enu euh, ci benn saafara te ci engagement mi ci ci kàddum waroon na respecté lii depuis le mois de mars 2023 loolu mooy délai bi gënoon limite euh, bi ci njëkk mooy wàllu euh, veuve ak veuve enseignant supérieur mooy enseignant yi nga xam ne Euh, génn nañ àddina seen njaboot yi am na lu yoon wax ni war nañ ko am ci wàllu pension loolu yoon moo ñu ko may waaye booba léegi ñoo euh, ñooñu nga xam ne seen borom kër yi wala seen soxna yi euh, génn nañ àddina mënuñu ci jot loolu pour ñu mën ko am il faut que am benn décret boo xam ne dañ ko war a modifier décret bi sax président bi d'accord nañ ci ba ñu defar ko waaye il faut que ñu indil ko ko ministre de finance indil ko président bu ngeen mu mën ko loolu lu metti la puisque ñooñu liggéey nañu ba génn àddina lii yoon mooy li ko yoon waxee ñu mën cee jot euh, ci wàllu pension de réversion loolu daal jafewul te foog naa ni euh, ministre bi góorgóorloon tuuti rek euh, sàmm kàddoom foog naa ni loolu war nañ ko mën régler loolu mooy bu njëkk bi beneen poñ bi mooy wàllum réforme seet ngeen fi depuis 2013 def nañ fi lu tudd CNAES mooy concertation sur l'avenir de l'enseignement supérieur bi nga xam ne waxtaan jëm waxoon jëmaloon nañu waxtaan xool fi enseignement supérieur dara jëm at at yi naroon ñëw mais seet nañu daal président laajte woon na waxoon na sant naa en tout cas ñu euh, jéem a évaluer CNAAS boobu mais boobu ba léegi euh, amul dara lu pour pourtant am na commission bu ñu créé na ma benn président muy professeur Omar Sock pour que commission bi mën réunir mais boobu ba léegi dara euh, defuñu ko alors que depuis février 2023 loolu waroon nañ ko mën a dépasser. beneen poñ bu métti mooy wàllum chantier yi ci université li ñu seetlu daal fan yi nii dañuy def tour université yëpp xool. Euh, chantier fi nekk mooy maanaam tabax ñu fay tabax euh, ngir ndong yi mën a jàng ci anam mu gën rafete li ñu seetlu daal mooy que chantier yi président géré mooy UAM Amadou Mokhtar Mbow université muy USEN Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass chantier yi nga xam ne président moo ko géré ay entreprise étranger di ko géré chantier yi mu ngi avancé bu baax a baax te kontaan na ci lool mu ngi avancer waaye yeneen chantier yi nga xam ne ministère moo koy géré te ay Sénégal di ko defar chantier yooyu demul fenn depuis 2015 moom la ñu seetlu en tout cas Ziguinchor ak Bambey ay bâtiment yi nga xam ne depuis 2015 ba léegi ñoo ngi koy tabax R plus 1 mënul pare mu ngi daanu sax seen kaw soo doo leen demee Bambey fi étudiant ak enseignant di jàngale mur yaa ngi xar di bëgg a daanu seen kaw te nee nañu suñu collègues yi bu ñu dugg ci enfier bu ñu fa jàngale bu ñu risque seen doomu xale yi ñu leen dénk dañu leen dénk ay xale doomu jàmbur bu xale yooyu bu ñu fa dugal xale yi te itam ñoom bu ñu fa dugg parce que loolu foog naa ni il faut que gouvernement bi quand même chantier yooyu ñi nga xam ne depuis 2015 li nga xam ne ñoo ngi koy Euh, ñoo ngi koy ñoo ngi koy tabax ba léegi ñu mën ko livrer étudiants yi parce que bachelier yi bachelier yi mun dugg change dafa yàgg ba nga xam ne même maçon yi ñu fa fekk maçon yi dañu mujj tabax seen propre jàkk ci biir pour mën fa julli parce que dañ fa yàgg yàgg mujj fa tabax ak seen jàkk ak seen néeg parce que dañ fa yàgg depuis 2015. donc loolu daal war nañ ko mën dépasser te loolu ministre waxoon nañ dina dinañ jox benn chronogramme pour établir plan de finition des chantiers waaye boobu ba léegi foog naa ne moom amul suñu jot moom mu ngi ci leneen euh, feneen. voilà loolu mooy euh, beneen poñ beneen point bi mooy wàllu recrutement xam nga ni euh, tey daanaka ak bac bu ñuy am chaque année bachelier yi day gën a bare car macha allah euh, te université yi enseignants yi si foog ñu recruter leen donc li ñu am ci jàngalekat dafa néew lool lool lool soo xaymaa liy yoon li UNESCO laajte soo jëlee benn enseignant ñaari fukki étudiant rek. la war a encadrer ci groupe en fait ci ci soo si jàngale classe am lu encadre loolu mooy taux d' encadre ñu wax taux d' waaye soo euh, jëlee euh, Sénégal ñoo ngi am pratiquement benn enseignant pour soixante dix étudiants maanaam benn enseignant pour ñaata encore juróom juróom-ñaar juróom-ñaar fukk enseignant pour soixante dix étudiants loolu xam nga ni moom dépense nañ norme bu yàgg am na cours yu bari nga xam ne étudiants ci biti la ñuy jàng amuñu fu ñuy toog donc loolu mën nañ ko def parce que am na ay docteurs yu ñu formé ñoo ngi fi bare ba dee car macha allah nañ leen recruter ñu ñu ñu jàngale te loolu président bi waxoon na bu ñu recevoir avril 2022 waxoon na ministre bi na ko def ni programme recrutement comme ça mu xool chaque année ñaata la mën recruter waaye boobu léegi euh, suñu waa ji daal moom euh, foog naa ni affaire boobu soxla ko parce que amu ci benn réponse bu mu ci joxe pour wàllu recrutement beneen poñ bi mooy wàllu recherche wàllu saytu bi euh, ci nekk ci biir parce que université du jàngale kese am na recherche te ci wàllu recherche dañu war a définir texte yi mooy charte yi nga xam ne daal moo war a encadrer recherche bi texte yooyu yooyu yëpp defar nañ ko li ci des mooy yóbbu université ñu waxtaane ko waaye booba léegi ministre téye nag ci bureau envoyé ko te loolu depuis deux mille vingt et un depuis deux mille vingt et un ci la SAES liggéey ci texte yooyu pare na te lu ñu laajte rek mooy que ñu jéem ko envoyé pour ñu di université waxtaan ci ñu delloo ko gouvernement pour ñu mën ko signer beneen poñ bi mooy wàllu foncier wàllu suuf université bi buñ fi mujjee keroog di waxtaan ak yéen waxtaan ak yéen ci wàllu foncier ESEA mooy école bi nekk fii bi nga xam ne dañoo jël benn partie ESEA jox ko benn waay benn privé te loolu yu ñaawlu ko parce que université c'est un domaine public privé moomu ko ñu waxoon que euh, loolu nañ ko annuler gouvernement bi décidé woon engagé woon dans les meilleurs délais immédiatement sax ñu annulé acte boobu waaye ba léegi kenn xamul ñoo ngi ne tekk di xaar yaakaar lu wax waaye suñu bët ñoo ngi ci terrain boobu bu ñu jox privé bi lu ñuy laaj te li gouvernement bi ci lañu engagé wu mooy acte bi jox suuf soosu privé bi ñu jëm ko annulé delloo ko école parce que école boobu ñu ay nit ñoo fa war a jàng ay étudiants ñoo fay jàng ay enseignants ñoo fay jàng ko delloo université loolu benn partie la am na aussi terrain bu SAES moom fii ci kat bi ay nit teg seen bët waaye loolu SAES am na kayit yëpp kayit yëpp yor nañ ko waaye bi ñuy des mooy titre foncier parce que def nañu demande bi waaye boobu léegi ñoo ngi daw dawloo fu ñu dem ñu jëm a dawloo waaye ñu xam ne terrain boobu terrain wu SAES la le SAES est en règle sur le terrain lu ñuy laajte mooy nañu jox comme tout sénégalais nous avons un droit à un titre ñuy jéem a dawloo nañu xam ni loolu mënul sotti muy ci Dakar mu ci Thiès. parce que ñaari problème yi dañoo bañ a jox CAES SAES kayitu terrain yi du ñu dawloo pour jéem ko fexeel nu ñu koy fexeelee ñu koy sàkkalee pexe en tout cas waaye loolu nag dañu euh, xam ni euh, loolu moom syndicat bu dee SAES ñu nangu terrain bu mel noonu ci moom te loolu dañuy wax na ministre bi rek euh, justement jéem a quand même takk fitam takk fitam parce que lii foog ma am fit takk fitam jóg poñ ñuy liim yépp mu jéem ko saafara loolu daal lañ ko wax loolu lañ ko sant parce que mu ngi fii depuis presque euh, léegi mu mat euh, def na un an de euh, peut-être def na un an am na temps bi quand war na mën quand même régler question yi te ñoo ngi koy xaar sur ces questions là li ma li ma bëggoon wax beneen poñ bu vraiment bu ñu soxal tey mooy wàllu université ubbi tey foog ñu ubbi université gouvernement bi bii mooy ñetteel yoon ñu tëj université yi yoon bu njëkk bi mooy jamonoy Covid loolu nag nit ñi d'accord nañ parce que euh, mën bi en tout cas euh, euh, pandémie metti woon na lool ba ñu tëjoon université yi pendant plusieurs mois loolu tëj boobu effectivement defa laal ci année académique bi ñu tëjaat ko deuxième fois ndax élection législative muy weeru juillet deux mille vingt deux. boolem ñaari yoon fekk na sa enseignant ñoo ngi ci examen di finir année bi troisième fois bi mooy. mois de juin 2023 ak li fi xewoon yàqu-yàqu yi bari fi xewoon te say sax condamné ko ñaawlu ko ñi ñëwoo ci réew mi yëpp ñaawlu nañu yàqu-yàqu yi am université yi enseignants yi yàq ñàkk seen bureau seen oto yi étudiants yi ñàkk seen salle de classe administration ñu bari ñàkk lu bare te loolu ñëpp ñaaw la ko ñun ñoo ngi encore condamné acte yooyu violence yi violence bi du question yàq rek ci mbedd mi waaye tere ki nga xam ne yoon war na yoon may na ko mu def lii nga tere ko loolu violence la ñu koy la ci ñaari côté yépp te ñuy wax gouvernement bi ak opposition bi dañu war a waxtaan te ñoom seen xeexu politique bi nañ ko sore université bi nañu xeex feneen suñu bëggee waaw santu sax ñu xeex nañu jiw du ma waxtaan waaye suñu xeex nañu mooy université bi parce que fii jàngale moo fi am lu ñuy seetu daal Sénégal li fi li li nar a dekk règle maintenant mooy que saa yu campagne amee saa yu amee élection ñu tëj université yi loolu mënul sotti te li ñu li ñu leen mën a wax moom université yi ci année bi mille 2023 benn semestre la ñu def xaaju année bi la ñu jàng ñu bari defaguñu sax devoir ak examen année bi bi xale yi nekk élémentaire tëj bari di commencé beneen année boobu xaaj bi sax defaguñu ko ikat ñoo ngi ikat nii ñoo ngi koy tëj lan moo tere université Cheikh Anta Diop ubbi lan moo tere ikat ubbi amul dara lu ci ikat ubbi jàngalekat yi jàng la ñu xam ndongo daara itam daara kaw yi dañu war a jàng suñ ko deful de ah suñ ko deful année bi su nekkee année blanche invalide suñu dañ ciy raxas suñu loxo parce que boobu ba léegi ñoo ngi wax nee nañu enseignants yi nañuy ñëw université dugg dugg ci salle de classe yi toog yor suñu éponge ba waxtu bi jot ñu ñibbi suñu gisul kenn ñibbi mais nañu toog fii parce que lii mooy suñu liggéey nit ñëpp a ngi ñoom ñoo campagne waaye ñun jàng lañu war a def ñun ñoo fii pour jàngale ana kuy grève ndax jàngale loolu la ñu nekk def loolu lañ nekk def grève pour ñoo mën a ubbi tax ñu jàng suñu demee bay def loolu nga xam ne na am na donc université nañ ko ubbi ñu jàng du ikat kese de am na ñeneen ñu tëj UCED ubbiwul ah Bambey ubbiwul ikat ubbiwul ak yeneen donc suñ ko deful de ah suñ ko deful ba année bi yàqu ah SAES daal foog naa ni kenn du wax ni waxu ko woon wax nañ ko plusieurs fois gouvernement bi que yàqu-yàqu yi mois de juin waroon nañ ko mën defar depuis su ñu amoon bonne volonté tuuti rek mën nañ ko defar parce que li fi yàqu am nañu ñu fi yàqu gaa waaye yaakaaru ma ni loolu war naa tax ñu tëj université yëpp depuis 4 mois. donc nañu sécuriser parce que itam violence bi mënuñu ko nangu de nangu dañ ko nangulul kenn violence bi fi am kenn nangul ko kenn ñun lu ñuy laajte mooy que dañu ko sécuriser ba nit ñi mën jàng ni ñu sécuriser ñeneen feneen dañ ko sécuriser université yi ñëw jàng. dal ci jàmm jàng ndax année bi ñu rattrapé su soo weer bi année bi dina métti trop te enseignement distance bi ñuy bëgg wax ni mën na nekk loolu mënul nekk ay naxee kese la ñoo ngi nax étudiants yi nax seen njaboot yi loolu mënul nekk ñaata nit ñu am internet seen dëkk yi am ordinateur enseignement distance bi ñuy wax même UVS bi ñuy wax mu ngi ci am ay jafe-jafe yu métti parce que bi joxul li war a joxe foofu ñu bëgg a yeewu rek di bëgg làkkatu ci gannaaw enseignement distance pour bañ université loolu mënul nekk SAES bañ na ko te nañu étu enseignants bu kenn defati enseignement en ligne fii lañ ko bëggee fii la te du feneen du en ligne de fii la parce que université Sénégal yi dañ ko dé tabax ci sur le modèle présentiel. loolu mënul nekk amul plateforme bi ñu xam ne préparé pour mën a tax ñu jàngal étudiants yëpp en ligne il faut que ñu dellu recteur bi directeur yi fi nekk d'UFR de faculté. de chef de département de section nañu góorgóorlu takk seen fit taxaw ba ñu mën dellu jàng recteur bi lu muy def ay naxe la mënul sotti enseignement à distance day nax étudiants yi day nax enseignant day nax sénégalais loolu amul nañu éviter enseignement au rabais bi médecin à distance warul de jàng à distance warul de médecin yi ñu nar a faj nañ leen for bu baax a baax suñu sàgganee ba ñu ñu nar a faj dama jël exemple rek suñu waaye suñu sàgganee ba ñu ñu nara a faj suñu leen formé ci anam yi nga xam ne baaxul ah ñu dañ ñoo koy yëg de ah ñaan yàlla mu bañ tombé ñu waaye ñu dañ ñoo koy yëg donc ñun lu ñu bëgg mooy que université ubbi ko léegi léegi léegi léegi nañu bàyyi politique bi ñun lu ñu soxal mooy pédagogie science ak recherche waaye pas politique politiciens yi nañu dem fale politique seen politique def seen campagne seen parrainage ñu ubbil ñu suñu béréb ñu jàng parce que fii daal ah foog naa ni euh, jàng la ñu xam te moom la ñu bëgg moom la ñu yaakaar loolu daal mooy li ñu bëgg wax parents yi sénégalais ñu xam ne enseignants yi taxaw nañ pour pare jàngale waaye dañ leen tere dañ leen teroo jàngale dañ ñoo tere jàngal tey dañoo génn mer bëgg a jàngale ñu ni dañuy tëj lu tax ñuy tëj lu ñu teree jàngale amul dara lu ñu tere jàngale dañoo bëgg ubbi ñu jàngale balaa muy taar ah année bi su yàqoo daal yéen c'est ay ñëpp ay seede ngeen bu ñuy wax ni daal enseignants yi SAES waxul woon jërë ngeen jëf